yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. waaw waaw. laa ilaaha illa <laughs> barki Serigne Touba yaa ma sagal. wax loolu xamoon naa ne doo ragal barki Cheikhul Khadim. waxoon naa la yow murit bu ragal amul. télé bi yaa ko moom. moom am na ci am na ci kàddu de. jot na dama doon liggéey nii dama bàyyi sama liggéey ñëw ndax émission bu ma gis mu ku ne di wax. ku ne di wax. télé bi bu dee yaa ko moom. barki Cheikhul Khadim doo ragal. bu dee yow yaa moom télé bi. jubal nga def lu neex. maa ngi nii. ndànk rek ci lamb yi nu jëm ci at mi. non waxal. télé bi yow yaa ko moom maa ngi nii danga ne ma ma ñëw ñëw naa. booy toos doo eh, ñëw ñëw naa. Eh, télé baa ngi eh, ni la ñu nekk. sama yoon newul ci loolu àdduna ak ñuy seetaan. sama yoon lay wax rek en direct la ñu nekk àdduna ak ñuy seetaan. télé bi yow yaa ko moom. jugal yàlla moo fi ñëw. yow tax ma ñëw fii télé bi eh, eh, eh. da ngay tooñ. sama yoon dem télé bi moo moo ko. mais buuse dafa am lu ko bëgg sax moo ko doo fi dara. xoola xoola ay ay kilifa ñu seetaan doo fi dara nga am kilifa ñu seetaan. waaye dara xoolam dañ ko tooñ buuse bi bàyyi. waaye waaye kilifa am lu mu bëgg wala. Serigne Bamba non. xaaral eh taxaw bu leen ko may li mu bëgg. bu leen may kii li mu bëgg. bu leen may kii li mu bëgg. bu leen ko may li mu bëgg. bu leen may kii li mu bëgg. mel nga kii kii bi Pape Samba Pape Samba mel nga kii